yéen mbokk yi ñuy topp saa su ne ci seen jotaay bii nga xamante ni mooy alhimma wal maarifa koy ànd ak Serigne Babacar kër ñu leen nuyu ba baax te di leen dalalaat ci seen kër gi ak seen pénc mu am solo mi nga xamante ni dañ leen fi indil njariñ yoo xamante ni dangeen koy jariñoo sëriñ bi dañ la jox kàddu yi nga nuyoo ñi ñuy taataan ak ñi ñuy seetlu bu ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. aouzu billahi samil alim mina shaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يهو قولي دلين دال دلين اهلا وسهلا جير يف سيرن بي يفاو خولي تي نيو بو ام سولو بوبو خانا ريك ndagam jotay bi dama fara di wax importance bi ci ne ndax xam xam limi reuss yonentini jarna dem ba siin xam-xam li muy riis yonenti jaar na sol dàll weñ di daw wuti ko ba mu dagg waaye lii kon lii ñuy eh, véhiculer fii risque yi kon am na solo ba tax na saa su ne ñu ngi koy bàyyi xel ak njaboot gi dañuy dugg rek tey ci jotaay bi jotaay bu ndax yi ma ko wax xam ni mooy ittiyoo sa borom te mooy géeju tasawuf waaye tamit maarifa tamit mooy xam-xam bi nga xamante ni mooy génne nit ki ci mu xam yàlla te bu xamee yàlla am yàlla ndax nit ki lu mu xam wala lu mu am te xamu ko sax ñàkk ko da koy gën ñu ngi waat tey ci benn paragraphe ci biir maarifa benn paragraphe ci biir tasawuf mooy zikr asgar tudd yàlla zikr tudd yàlla turu yàlla tudd yàlla ana lu ñuy ubbee sëriñ bi ci lan mooy zikar ba pare soog a ñëw ci xeeti zikar yi ak la aju ca yeneen laaj ya waaw zikar moom baatu arab bi nga xam ne moo lay tekki mooy fàttali fàttaliku zikar ci lislaam mooy tudd yàlla euh, bu dee nag si euh, biir tasawuf day am ay déggin yu bëree bëri yu gën a xóot euh, rek tudd yàlla waaw mhm. jërëjëf sëriñ bi eh, ci laaj yooyu nga xamante ni li arab yi di wax moo ne saa su ne ci say leeral mooy xayru kalaam yi ma xalawa dal la wax moom li ci ëpp solo mooy lu gàtt ndax nit ñi loolu lañ soxla eh, lu tënku te am njariñ mm-hmm. ah kon jërëjëf ci njariñ yi xanaa lañuy dugg rek kon ci suñ point bi ci suñ mawdoox bi temu tey muy zikar mm-hmm. gis na ni ci sariya mooy loolu ci tasawuf kon mooy fàttaliku mm-hmm. kon nit ki li muy fàttaliku. Hmm. kon fàtte woon na ko. Hmm. te jaam bu te fàtte yàlla. Hmm. kon yan xeeti fàttaliku ak yan xeeti zikkara ñoo am. ci tasawuf. waaw an waxu zikr yi moom euh, salaasa euh, bi njëkk mooy zikr bi lisaani. ci làmmiñ. waaw nga xam ne bu ne zikr bi lisaani. léegi day séddal ko ñett. waaw mooy bi. tahmidi mm-hmm. wa tasbihi mm-hmm. wa mm-hmm. maanaam tudd yàlla ci di ko sant ci ëm ñu defal waaw shukru bi nihmati yu naa raditu billaahi rabban wa islaami diinan wa bi muhammadin nabiyyan rasulullah loolu muy jiitu sant yàlla ci mu nekkee moom yàlla suñu yàlla nga xam ne ñu jaamu nuy xërëm jaamu ñu suñu moroomub jaam Euh, jaamunu benn mbindeef ki mm. bind muy xaalixul baari mm. waaw muy ki xam ne mooy badiw sanwaati wal ardi mm. ki nga xam ne mooy rabbul alamin muy allahu azza wa jalla ñun moom la jaamu euh, kon loolu mooy sant gi mm-hmm. euh, sant itam ci bi nga xam ne lislaam leeru lislaam dugg na suñu dënn ba ñu gëm nekk ay jullit nekk ay muslim loolu ak cant mm. eh, féetu ko kaw mm-hmm. sant yàlla loolu tamit sikkar la làmmiñ waaw loolu sikkar la ci làmmiñ mm-hmm. waaw nit ki da koy sikkar da koy dund mm-hmm. ndax في نتبير بذكر لساني ذكر لساني واو دفع عندك تدبر عندك تفكر لو دنا نيو صاح تي كانام سون دي اندي ذكر الحلبي ذكر الحلبي اللي مدام ديسان دغ لا لغي سانت يالا تام تي ديغا خامني يونت صلى الله عليه وسلم موي محمد ابن عبد الله وامينه موي سونو يونت بيغا خامني مو فيتي كاو يونت ييب gën ci yonante yi te it mooy xatmul anbiyaay mooy imaamul mursalin loolu dañ ci sant sant goo xam ne amul fu ñu koy yemale sant itam ci dund gi suñu borom jox nga xam ne dund gi tey ci nga mën a defee yiw yëpp yi nga xam ne war nga ko liggéey ci kaw suuf bi ñu defee itam ñu nekk ay doomu aadama nga xam ne ñu bind ci bind bi mu bind Muhammad sallallahu bind ñu nekk ay bàyyi ma jox ñu itam xel loolu yëpp maanaam cant yi dafay. waaw dafay représenté ko. ay tudd. Ah, ay tudd ay ay tudd waaw. tudd nga xam ne waaw ki da koy tudd yàlla. ci biir cant gi ak ci biir. waaw ni muy kennelee yàlla. waaw mu ngi mu ngi koy tudd tuddaat ndax koo sant yaa koy tudd. waaw ñu delluwaat ci beneen façon zikr bi. waaw beneen façon zikr bi. Mhm. muy zikr di xal bi. Mhm. nga xam ne bu xoo tafakuru. آه، في درائل آه، ذاتي وصفاتي آه، واسرار المخلوقات بوبو لي خانا مو مو غنو بيردي واو بوبو باتاي مو مو مو بنن دغره لا تي ذكر موي ذكر بحلبي في تفكري في درائل ذاتي وصفاتي muy tudd yàlla ci xol day ànd ak tafakur tafakur mooy lan euh, xalaat jëmmi suñu borom di ci euh, ay meloom hmm. waaye doo xalaat ci ni mu mel moom nga xam ne sëñ bi kon sikar lu am doole la hmm. xam nga tafakur hmm. paragraphe la ci ci ci yooni saali gi gaa yàlla yi waaw waaye biir sikar dafa mel ni importance u bagage yu bari ci tasawuf dafa duggaale ci biir waaw xam nga zikar dafa boole bil xal bi tafakkur waaw zikar dafa boole mboolem euh, li euh, ab suufi mm-hmm. wala mboolem li jaamu yàlla bi mm-hmm. soxla ci jaamu gi ci jaamu gi muy jaamu suñu borom mm-hmm. muy zikar dafa may dana may nit unsu muy dootoo dootoo dootoo wéet dootoo nekk yokka kese mukk yow moom nekkutoo yow kase maana fi ne heure bi nit ki duggee ci bunt tudd yàlla rek nekkutul moom kase mhm. waaw ndax euh, zikkar bi ngay zikkar day am présence su malayka yi mhm. am pré présence su euh, jinne yi mhm. am pré présence su euh, waa am présence yàlla mi nga xam ne mu bind moo féete kaw ndax ne nit heure buy teewlu borom rek yàllaa ngi jaar su man zakara ni la wax mm, ma ngi teewee jotaayu mm. aj ki may tudd mm. kon euh, nikki buy tudd yàlla mm-hmm. da koy boole tafakur muy zikuru xal bi zikuru xal bi boobu mooy wax zikuru xal bi waaw waaw waaw fii dalaa'ili wa sifaati léegi nag loolu daf lay yóbbu ci beneen beneen façon beneen façon zikr bi nga xam ne da lisaan dem nan xal ba waaw xal bi jeexalaguma ko. Mhm, ndax zikru xal bi fi ne euh, mooy ànd ak euh, tafakur. Mhm. tadabur. tadabur waaw. ak taamul. taamul ndax fi ne boo see xalaatee. Mhm. da ngay seetantal ci biir xalaat bi ngay xalaat. muy seetantal bi ngay seetantal sa borom ci nu mu bindee nga xam nga xam ne moom moo bind asamaan. amul kenn koo xamante ne mën na lu mel noonu. kon ki bind asamaan ku am la balaa ngay dem sax ci di xalaat noonu moo bind asamaan yow yow bind bi mu la bind rek kéemaan la. ci zikar. waaw. waaw bind ne maanaam te it enrif euh, bi buy buy zikar buy buy buy xalaat boromam da koy xalaat ci ba dara amagul. Mm. ca yow ma alas awalan. Mm. bi ruu yëpp ne xaalu balaa nga xam ne moom xaa moom teewaayam foofu. maanaam day dem ba day nekk ci kanamam. kon ndax boobu xol bi mu ngi connecté. ndax boobu xol bi mu ngi nga xam ne euh, foofu noonu lay àgg ci euh, tafakur ak xalaat boromam. Hmm. maanaam du yem rek maanaam day jóge fii ci alam bi mu nekk mu alamu naasut gi. waaw naasut ndax naasut ci la ci la cër la am. waaw waaw hmm. léegi day jóge fii yëpp. Hmm. dem ba foofu fañ ko bindee dafa wéetelee boromam. ba nga xam ne fañ ko bindee nga xam ne moom la nitu yàlla yi. di wax naan euh, jaamu naa sama borom. lu jiitu muy bind Adama ak Awa. Mm, ndax foofu. Mm. ab jaam la fa woon. ab yàgg naa jaamu yàlla te fekk boobu àdduna amagul. nga xamante ne tafakur. waaw moo ko connecté ci xol bi. waaw xol bi set. waaw ci ayib. tafakur connecté ko. waaw la xewoon la xewoon. mu ngi noonu ak saa eh. léegi kon ak euh, kii maanaam tafakur tam ci. Euh, maanaam mbiru jaam ñi comprendre jaam ñi ba nga xam ne lu ci nekk rek da xam ne su ko suñu borom bindee bind ko ci neen yàlla bindul dara ci neen bindul dara loo xam ne da ko bind ci neen mm-hmm. lépp lu mu bind rek da ko amal importance yàlla amul jot mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi ndax jotaay bi jotaayu daara ndax daara moom mooy fu ñuy jàngalee mm-hmm. du benn jotaay boo xamante ni dañ ciy dégg lenn lu génn yàlla ndax tasawuf moom nee mooy lii marale nit borom moom xamante ne nit loolu ci borom la koy euh, orienté loolu nag jotaay boobu nag lu ne da feeñ. Mm-hmm. jotaay boobu parce que nit ki pour nga véhiculer benn pédagogie wala leçon. Mm-hmm. dafa am nu muy demee. yi àlla nag boo ci boo ciy wax ñii demee dangay ngay fexe ba ba ba xaal bi xaal bi ñëw rek. Mm-hmm. noonu lañ koy jàngale